nekk ci benn niveau bi ñu bañ ma ëppale dara loolu moo taxoon man ma dugg ci coiffure loolu yokk na ma poussé ba coiffure ma bëgg ko ba mu jaral ma lépp lépp lépp ba lépp lu ma dégg ci coiffure pour man war naa ko mën a mën war naa ko mën a def ma ma yàgg ci topp nag bu yàgg ma yàgg ci bu baax a baax bëgg ko def ko sama passion te mooy sama vie sax laa mën a wax parce que mooy sama vie waaw maa ngi employé ay jigéen parce que fii nii gis nga ñi ngeen fi fekk fi lañ nekk ay employé lañ di fi liggéey bokku tax ñi nga xamante ne dañ leen jël di leen formé dañuy formé sax coiffeuse bi nga xamante ne dafa yor place am di liggéey ñun dañ koy formé da nga ñëw ñu jàngale li nga xamante ne ni moom nga mënul te nga gis ko ñun mu neex la ñu koy def nga ñëw ñu jàngale ko nga dem liggéey sa place nga continuer te am na tamit lu ñu préparé pour banlieue loo xamante ne day jàppale xale yi nga xamante ni seen parents yi amuñu moyen pour pour euh, dugal leen ci yenn écoles yi nga xamante ne dafa cher ñun ñu taxaw pour jàppale leen defal leen formation boo xamante ne ñoom buñ ci jógee dinañ mën a jëriñ seen bopp parce que ñun ci lool lool lool loolu lañ nekk daal. waaw ëpp na 10 ans mais dama xamaliku rek xamaliku ci métier bi ma jël métier bi rek moom comme li ma wax sànq man mooy sama vie métier mode coiffure bi may def man mooy sama lépp rek si laa si laa koy passé pour man. dañuy def coiffure maquillage cérémonie mariée ngénte dañuy def maquillage du jour ku bëgg dem dîner ñun lépp la ñuy def lépp teinture perruque perruque pose perruque lépp la ñuy def bàyyiwuñ dara loo xamante ne dina taaral jigéen daal ba boo génnee mooy macha allah foofu toj ñun ñu Euh, li tax ma choisir Petite tàngaay lañ nekk Petite mooy pour tàngaay nga xamante ne dara du la déranger lool moo tax parce que ñëpp loolu lañ ma xamee la reine de Petite Tête sax may wax lool moo tax ma choisir ko pour defaral ko. ñoo ngi nekk euh, Géejawaay en face stade du Barry ñu ngi jàkkaarloog juste terrain basket bi. am nañ TikTok Snapchat euh, ña ngeen coiffure boo tapee ña ngeen coiffure du ñu gis Instagram fépp suñu numéro téléphone 77 023 01 50 mooy numéro nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee pour pour ñëpp. 77 023 01 50 waa ñun dañuy def déplacement fépp foo mën ci nekk rek boo ñu woowee ñun dañuy déplacé wu fekk la fi nga nekk defaral la ba nga kontaan. Euh, maa ngi gërëm ñëpp di sant sama waa place sama équipe bi ma àndal gis ngeen leen suba ba léegi. waa géej waay surtout samay cliente yi nga xam dañu fidèle si ña ngeen coiffure lu mu def bëgg nañ lu mu deful bëgguñu maa ngi gërëm monsieur Dia mi nga xamante ne moo ma may lii may def nii ngi dégg. sama yaay di ko ñaanal gudd fan ak wér mu dund bañ koy kaala di ko yóbbu màkk parce que jàppale nañu. ayca am na solo ñu woon ci biir banlieue bi euh, plus euh, plus précisément biir Géejawaay demoon euh, seeti coiffeuse bu mag boobu. maquilleuse bu mag boobu nga xam ni Awa Gaye yaa ñu ko présenté waaye yaa ko présenté àdduna fi ñu toll euh, mi ngi noonu euh, Aba mu nekk jigéen bu xarañ macha allah ku mën li muy def euh, am produit yoo xamante ni macha allah soo fa demee rek di nga am li nga xamante ni moom nga bëgg ci sa kanam waaye di nga am li nga xamante ni moom nga bëgg ci sa bopp ni lay accueillir aussi macha allah su fekkee ne yaa ngi géejowaay fële la nekk en face stade Amadou Barry wala bu dee nekkoo géejowaay nga bëgg a dem foofu noonu fekkee ne foo mënti nekk rek nga jël Uh, how to call it uh, bi uh, straight même pas 30 minutes nga yegg mu defaral la lu rafet lu nice nga daal di dem at the same time dégg ngeen ko wax na ne da ngeen ni dem da ngeen koy woo ci numéro bi mu joxe xam naa dinaa ko bamtuwaat si kanam tuuti. dañuy def déplacement foo mun ci nekk rek ñu defaral la really really nice stuff seen seen ay affaire daal baax na lool Aba mi ngi noonu mun ngeen ko woo ci 77 023. a 0 01 50 77 023 01 cinquante aba ah ah, mi ngi noonu ah, kooku moo doonoon ki nga xamante ni mooy madame Dia Kumba Kumba nag gars yi comme ni nga ko déggee nee na moom li ko dugal si coiffure bi à part bu mu nokkee passion parce que yaayam da ko daan def ak létt mooy bugg pour woon euh, benn moromam raw ko euh, surtout ñi nga xamante ne peut-être dañu toog ci bangi école ak yooyu noonu parce que mu gëm na ne euh, ak dina mën a employé lu ëpp six personnes dina mën a contribuer ci vie yeneen jigéen dina mën a mhm. jàppale yeneen jigéen pour ñu mën a demal seen bopp mhm. te tamit dafay def formation maquillage formation coiffure nit ñi dañu jógee nee na ba Mauritanie ba mhm. Nouadhibou di ñëw mu daal mu di leen di defaral li nga xamante ne yeer mooy boppam bétti yow xam naa bés yàlla di borom jëkkër borom kër incha woo te gis na li mu def si boppam ak tendance la éternel yee mm-hmm. right bet yee macha allah gis nañ ko Aba ki nga xam ne moo di ñang baalo euh, lu rafet rek la fi defar macha allah ndax gis naa ne élèves yi ba nga demee ba ba ni ngay paree kenn toogul. ñu mm-hmm. defar la petit ten nag bu toog. ak make-up bu rafet bu simple macha allah. Euh, kon nag man gis ngeen contact baa ngi noonu euh, mën ngeen ko woo bu ngeen demee rek incha allah mu daal di leen defar ba ngeen bëgg. mi ngi noonu Aba bu soobee wax Olof Ndiaye moo ni ku def lu baax Olof Ndiaye dinaa la fi nga wokk foofoo xasan. dëgg la. delloo fa sa loxo mhm. ci li ngeen nekk bu leen ci dara jëlee di ngeen ci am weccit mhm. waaye di ngeen ci am yàlla parce que ñi euh, dañuy ay jàmbaar yoo xam ni mhm. dañuy nekk yi yenn saa yi fu foo xam ni àdduna euh, du ñu xam ci lu ñu nekk et pourtant ñu def lu am solo loo xam ni toute femme day soxla li nga xam ni moom mooy li ñuy def nii donc ngeen wane leen wan leen àdduna te moom mi bu ko ñeneen ñi muy euh, bokkal même liggéey bi woowee ne ko ñaata nga fay aw gay bu waxee ñun dañuy xalaat nañu loolu kenn ko fay ci télé ñu vulgariser wan ko àdduna ba ñëpp teg seen bët te doo fay loo xam ne lu metti lay doon donc ñëw leen fii euh, ngeen wane seen ay bagage ñëw leen fii wan ñu seen ay boutique ñëw leen wan ñu seen ay atelier mm-hmm. ñëw leen wan ñu seen ay magasin ci lépp li ngeen yëngu rek ñëw leen wane ko ci biir seetu Sénégal nga xam ne mm-hmm. heure bi mooy heure bu baax bi heure bi la àdduna yëpp di seetaan heure bi la ñuy dugal nga xam ne ñooy ASC yi heure bi la ñuy dugal ñi nga xam ne ñooy association yi bi la ñuy dugal ñi nga xam ne ñooy arco yi artistes yi yëpp ci def ambiance ñun ñu neexee mm-hmm. waaye téléspectateurs yi woote leen ñu jox leen teranga Sénégal muy bëgg a jeex ñu war a jëm ci final ba euh, war a dem ci maye bi nga xam ni moom moo mujj maye bi gën a mag mooy maye bi ñuy maye kër gi waaye maye ci ay million maye ci li nga xam ni moom mooy ay matériel yeneen ak yeneen ak yeneen yaakaar na ne yéen ciy bàyyi xel bu baax ce samedi à partir de 22h Mao Cissé bu fekkee baax na dañuy may clip wala bu fa clip amul nga may ñu benn élément ci Aba Show wala nga may ñu bande annonce Abba Show mhm. vendredi bi incha allah fii ci biir Kër 26 waaw entrée simple bi wax nañ ni 5000 5000 la VIP 10000 la mhm. ñi fay VIP ñooy toog fii ci kanam ba ci kanam waaw ak fee ca kaw waaw ñi fay VIP dañuy naan ndox waaw naan jus mhm. ñi fay VIP dañuy lekk pastel gis naa sax ay fruits bi lekk akara ak ay fruits gis naa ay petit four. bëggoon na ñëw ci saa dinaa la wax li booy bandi di wax. Mhm. booy waxalee te Ndella am na lu ma déy si Abasho bi. Ah. xam nga day waaj a tudd doom muy ngeen. moom Ndella. la Madior gisoo doom bi. ah doomi la Ndella Madior. waaw ah. daa am doom. nàmpal. <laughs> am na loo xam ni. Mm-hmm. ñun bandi. waaw boo ñu waxalee yu baax. Mm-hmm. moom lañ lay toll. dëgg la day sa nax. day sa nax. day sa nax waaw. wala ne day sa nax ba def damaa ñeen bëgg seen billet. Mm-hmm. ñi fay 10 000 laa nii ñooy fekk ci kanam lekk pastel lekk yu baax naan ndox naan boisson. ñi fay 5000. rek le rek. toog reetaan tuuti. calme tuuti reetaan. mbala ngeen génn. som rek ngeen fay. ay ci entrée yaa ngi noonu 5000 la VIP 10 000 numéro téléphone yi 77 648 19 86 wala 77. 655 51 80 ngeen woote jël seen ay numéro euh, billets yi nag mu ngi dem comme buraake comme des petits pains la tubaab di wax waaye ñun olof dañu naan comme buraake donc tarkala billets yaa ngi daw bu baax a baax a baax ci wax yu sew ngeen nekk ma nekk ñun ñett ñu nekk fi may wax ngeen bëgg maa jëw lii rafetul sama diggante yéen te ku ci nekk ci yéen ñaar am na lu ma la xamal ñu xooli ban annonce avancée ba ko ñëwaat léegi ci plateau eh salle bi toj na gars yi naan non jël na ko ñaxare ñu ngi wet gi nekkaan Wally ba tudd tur de mu naan ko je ne suis pas fou elle me plaît c'est xam ngeen moom rek ah appui bi liggéeyam dana duggante saafonte dugg nii rek gis benn waay baa xam ne 17h la nel bi xees nii benn poset commencé tijjee ko ne rek rek waaye perte ne waat ne tar capati sambay naar xalam yi seen sambay naar. ñuwaani ñuwaani samay naar faako kon yow ça veut dire que Réagir, il y a un peu de... Nous taguons, s'il vous plaît. Réagir. eeg eeg fii laa la. ni bàyyi ka bu su ma waxaatee jaar loolu metti na daal nga yow yaa tax ki yab ma dama nga ñëw nii. waaw duñ ma lekk. bàyyi ka ne la daloon démb lu ko raw moo lay dara. Eh, eh, eh. fii la film bi xaaral dañu dugal benn page de publicité wax na ko war na ko war na ko li yaa daloon démb. boo moytuwul tey lu ko ëpp ñu ne ko daal lan moo ko daloon démb loolu ñëpp di laaj publicité. Techno moo ñu indi moo ñu indi Camon 19 merci beaucoup Calcio Shop l'homme Badou moo ami mon frère mon jeune frère Badou Kayré l'homme de West Foire l'homme de Wakam merci beaucoup prêt-à-porter la boo xam ne bu la jaayee yére boo sangoo pare bul sol yére yére fekk nga ah tay Calcio la nekk ay West Foire kii mooy Mina Minam am na Aslan Minam am na ville Minam am na fi nga xam ni moom mooy Touba Minam am na Pikine Minam day jaay dàll day jaay ay saak day jaay ay accessoire ay montre xeeti baax baax yépp daf koy jaay merci beaucoup Ousmane bu ngeen demee am na TikTok am na Facebook am na li nga xam ni moom mooy Twitter am na Instagram am na Snap am na lépp ay ca Amdi News moo nami am di moo ñu teree def tànku neen chéri Kenza bàyyi bàyyi Niass am dee nga foofu ca Colobane waaye mu nga Grand nit day gore koo xamul niñ ko def ni mu la def moom moo tax li ma doon tay yéen a ma ko def faw ma bàyyi leen xel ding ding ding may ma cinq minutes ma toog ne xàmb ka aje yaa wayen way way bébé kii sa la xale bu jigéen bi ne ko kii bu kii foowukaay la sama papa moo ma ko jëndal pour ma koy foowee awa ñi seytaane nañ de lan la barke Rasulullah ñu ma toog. yaa leen gën a seytaane. ba pare seytaane yi naan ma waxal ci Sidy Diop ak Omaro. Eh. Eh. Eh, suba nu dellu waxal suba nu dellu abaa moom réew mi te bugg fi karaw suba nu dellu. suba ñu nel nga naan axal suba ñu nel nga naan abaa moom réew mi te bugg fi karaw suba. ay ca suba ñu nel ay suba ñu nel abaa moom réew mi te bugg fi ko wooma wooma Pape Moussa Thébo ak nu ñu def ba nekk ci ginnaaw équipe bi xam ne moo jël euh, tournoi bi ayca. salaamaaleykum ñu ngi nuyu Sénégal gi yëpp ah di nuyu diaspora bi abaa ñu ngi leen nuyu yow di la ziar bu baax a baax mën nga siggi mën ngaa siggi euh, toog nekk à l'aise mënoo nekk président supporter yi ñii di ambiance nga bëgg ñëw ruus di la ziar euh, baax a baax wéeru Euh, nga siggi xool caméra bi caméra bi di la xool nii nga jiite ay ambianceur lañ mënoo fee ñëw nekk ku ruus wala ku noppi wala ku yooyu duñ ko seetaan léegi nuyul teg àdduna àdduna ngi lay seetaan nga mel ne ku ñu ruus nii maa ngi nuyu àdduna yëpp ñu ngi nuyu àdduna yëpp di nuyu diaspora bi di nuyu surtout yëmbal gi ñu jóge quoi mhm. di nuyu département Kër Massar mhm. ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp euh, abaa bu ñu nuyoo pare yow sa jëm bopp la ñuy njëkk a gërëmaat mhm. yow personnel parce que li tax ma lay gërëm man euh, tey da nga def loo xam ne nii maam danga nga wane waat ni nawetaan du violence mm-hmm. nawetaan du affaire vagabond nawetaan lu noobule la tey da nga da wane waat lu rafet nga wane waat tey Sénégal pour ma waxaat ko ay see yëpp muy waa Louga waa ndandak waa Ndar waa Ndakaaru mm-hmm. euh, nawetaan dafa noobule lii dafa noobule quoi abaa ah loolu la loolu la ñuy jàngalaat quoi loolu lay jàngalaat Sénégal gi yëpp. te ñëpp ci jaar. ñëpp ñëpp ñëpp waaw amul ku si jaaru la amul ku si jaaru lii dafa noobule. dëgg billaahi wallaahi dafa noobule yow yal na yàlla fay daal lañ lay wax abaa bu ñu jugee si loolu. Mm-hmm. bu ñu jugee si loolu balaa ñoo woote dañuy dañuy dañuy ñun sant fi ñu déparé fi ñu jugee. parce que tamit. Euh, déggoo mm-hmm. déggoo dafa doon ASC boo xam ne nii. Mm-hmm. Euh, mbay wax na ko léegi 1985 la boobu ba léegi euh, suñuy papa si newoon suñuy maam man mi toog fii di wax ñu fal ma président supporter 1991 euh, laa judd kon déggoo ba muy am man juddu ma voilà kon dañuy sant ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko té ba heure bii ñun ñu ñëw ñu jox ñu ko te dara yàquwu ci te dara yàquwu ci euh, ah di ñaanal ñi nga xam ne nii tamit ñu ngi fi woon euh, génn àdduna ñu ngi leen di ñaanal euh, yàlla xaaral leen àjjana euh, ñi ci nekk Europe tamit yàlla defal leen fi li ñu fa bëgg ñi tëdd tawat yàlla may leen wér ak wér la di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne nii mooy suñu papa papa Mass Gueye di responsable politique PDS moom mi ngi yëmbal doonoon suñu président doon suñu papa ba léegi abaa dañuy gunge di nuyuwaat suñu yaay joo xam ne nii moom même budul ayse budul dara yaay na koy jóob yaay na koy jóob amuñu fayam moom ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaanal boroom këram waaw supporters yi nag seen i yaay ak seen ay papa ak seen ay pareew ak du bopp ak pareew ASC bi waaw supporters dañu am seen yaay bopp maire yi leen defal bi ma lay wax nii di jàpp ci transport yi mooy mooy abaa mooy maire bi ma lay wax nii mm-hmm. maam réunion këram mm-hmm. këram maam day parfum defar lépp këram supporters yi tilimaay fa la ñuy dugg fa la ñuy defee lépp yàlla na koy jóg ñu koy yaay booy ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay ñaanal li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal te tamit te tamit xam nga booy yi dañuy réunion mhm. euh, bi te mu nekk maire bu sawar yooyu di sonn ci ay xale mu defar leen ay fataay ak ay beñe booy yi ci am ñoo xam dañuy bëgg duus bi ah, waaw yow daa mel da ngaa fekk li wax nii waaw waaw beneen bi mooy Euh, mënuñu gërëm mënuñu nuyoo te nuyuwuñ suñu président ay ASC muy Seydina Issa laay Diop aba moom mooy président douzième gaynde mais mooy suñu président ASC dañ koy waaw di sa di xarit yow xamante ngeen yéen ñaar euh, moom amuñu fayam moom amuñu fayam dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal li bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal euh, aba lii dama koy jégalu parce déggoo bi juddoo ba tey ñu ñooy suñu sponsor officiel. wallaahi lancé bi ñu ba tey ñun dañuy defar mooy tey équipe championnat yi daw ñëw songuñu mooy supporter tey ñu ni loolu confection Baara Diop moo ko waral. waaw tàccul leen ma ah, ko a baax waaw confection Baara Diop amul déggoo amul fayam loolu dama koy wax au dama koy wax si kaw dama koy wax ci suuf. loolu moom waa Concobat la loolu moom euh, suñu fierté la ñu dëkk yëmbal mm-hmm. dëkk ci banlieue bi am nañ suñu. marque boo xam ni. Mhm. mooy suñu marque bopp muy confection. Euh, Baara Diop loolu ñëpp xam nañ koo fa bat euh, yëmbal gépp ko wax koo fa bat ba ci armée bi ba ci partout au Sénégal donc mhm. loolu moom ñëpp xam nañ ko vraiment mhm. macha allah et euh, ko <laughs> aw waaw nit yëmbal nga yow beneen bi mooy balaa maa avancé si yow laa ñëw sànq maa ngi dégg mbay di ko wax loolu man comprendre naa ko parce que maa ngi yow daaw ñoo nekkoon doon si yi man du du luñ ma nettali damaa fekke fi mu ne nii xam naa li nga yor yëpp da nga koy dajale pour xëpp ko fa la nga yor ak engagement ya nga fa yor xam naa ko mais ASC bi lii moom hmm. balaa ñoo dem moom yow yaa si jàpp yow personnel aba ndax yow fi mu nii loo bokkul baaxul non non góor gi sama benn xarit bu nekk fee. waaw. Mao Cissé la tudd. Mao Cissé dinaa ko leb deux cent mille. Mm. jox leb laa wax ma xam ndax dinañ ma lebal bàkk beeg bàkk beeg seen bàkk beeg yuuxu beeg àll bi yëpp dama ne daf dinaa leb wóoru leen sax ba xam dinañ ma lebal waaye en tout cas dinaa mais mais yeneen ay <laughs> nee na abal na ma nee na lebal na ma maa Cissé merci beaucoup yeneen ay yi war a ñëw euh, li ñu mën mm. mooy ubbi leen suñu ay buntu mm. li ñu mën mooy ubbi leen ay opportunité ba ku baax ku ne ngeen mën koo tudd bu dee ku ñëw euh, euh, <laughs> nga lem <laughs> day metti ay te mais lii euh, c'est notre fierté euh, c'est notre sang et c'est notre quartier donc c'est yëmbal luñ ci mën lu ne dañu ko ci def yàlla na seen jàmm yàgg et foog naa ni fi nga nekkoon euh, baax na yaa ngi doon woote mais je pense que tey dañu passé ay wàllu zone mhm. tey dañu dem ci département bi ñuy représenté mhm. woote ay ASC yi ne ci département bi seen ay supporters ñi leen ñaana ñaanal ak yëpp ñu ñëw nekk ci ginnaaw noo déggoo quand même waaw euh, donc yeneen ASC sax ñu ngi doon jug mais dama leen di woowaat ñu gën a jug. ku mel ni ASC Faro bi ñu wax léegi. Euh, ñoom bi ñu ni ñun dem nañ phase dañ ne doo ci wéet ASC cosaan ñëw taxaw ne xam nañ fa doo ci wéet ñu ngi seen ginnaaw. xandaalu la même chose ASC Jokko Manko euh, ASC Minam Gëstu ASC Jàmbaar ASC Boxalaat ASC yëpp ah di waxaat en même temps ASC Sanc bi nga xam ne nii. moom moo des saa yi ñun ñooy dem di ko wax euh, courage euh, nii la ko yàlla dogalee ñoom it ñu ñëw gën see jàpp ñu ngi woo ASC yëpp yëpp yëpp yëpp département Kër Massar bi ñu ngi woo ASC yëpp Pikine euh, dañuy dem ba Tivaouane Peulh sax woo ay ASC Dental woo seen président Aziz Fall mu ñëw jàpp si Papa Kaw ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp si ñu ngi woo ñëpp Aba ñu ngi woo surtout surtout di woo Amadou ministre la kilifa la ñu ngi koy woo. moom it mu teg ñu loxo mu ngi ñuy teg loxo mu gën ñoo teg loxo monsieur le maire Baragay moom mu teg loxo na ñëw gën ñoo teg loxo mmh. Modou Mbène Diop moom sama waay la personnel da war a ñëw teg ñu loxo mais Aba Omar Yaya mii may wax nii mmh. Omar Yaya dama lay wax dama dama lay wax lu garaaw si moom mmh. Omar Yaya ñu joxuñu ko soutien dañoo ñëw expliqué ko rek mu yëkkati un million may ñu wallahi lazim mu yëkkati un million may ñu kon Omar dama lay gën a woowaat euh, yaag Bamba ngeen ñëw jàpp si beneen bi may wax mooy aba sànq dama noon gërëm ñoo xam ne nii samay dirigeant lañ abaa ba ma bàyyi dem rek te gërëmu leen dina met trop ndax ñoom ñooy lépp AG bi ku mel ni Massamba Niang mii nga xam ni moo yor finance moo grand békaay Momar Ndoye euh, di gërëm président secteur yi mais surtout Ousseynou Kaw mi nga xam ne nii mi ngi toog fii sama ginnaaw moom son na si trop mhm. bi ñëwee dama accéléré a ngi ñëw yéen ne ma ne ma nañ dem mhm. par force dañuy dem mhm. Aba moo ñu invité fexe leen nga rassembler gars yi nga yaay président bi dangeen di ñëw ñu dem quoi Ousseynou ñu ngi la naan jërëjëf ak staff bi ñu àndal grand Serigne ñu ngi koy sant Mama Ndaw Fel gars yi ñu àndal ñëpp góor gi mbuub yow it loo tëggul baaxul ñu ngi lay sant bu baax euh, dirigeant ñu ngi sant ñëpp Seyna Ndiaye euh, maam Ndiine Libaas ñu ngi sant ñëpp bu ñu limee dañuy juum dañuy jël temps wu Aba bi mm-hmm. euh, yëmbal gépp département Kër Massar gépp ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàppale surtout abaa lu gën a garaaw déggoo dafa am ay supporters ba puut ba puut puuti Malick Kumba dañ fa am ay supporters yoo xam dañoo war a dañuy waaj kaar nii pour ñëw muy ASC Juboo ñu nag ñoom ay wóolare lañ waaw ñu nag ñoom ay wóolare lañ ñu ngi waaj ñoom it pour ñëw ñu ngi woo ñëpp ah di waxaat beneen bi euh, bugguma sénégalais ne kii abaa da invité wala abaa nitu yëmbal la du loolu abaa mii képp ku may seetaan maa la koy ñaan ci jëmmi Seydina Mouhamed ñu ñaanal ko mm. xam nga la moo tax ma bëgg ñu ñaanal ko jeune la xale la lii mu ñu invité nii da koo dund tey mënoon na mel ni ñeneen ñi dund ko ba pare xam si lu bëri mais tey lii mu def nii Aba mi ngi joué rôle bu garaaw tey ci Sénégal nawetaan dafa noobule nawetaan doon loo xam dafa laa wala nawetaan dafa war a boole dañ ne association dafa war a boole ñu bokk ndey bokk baay mais bu ñuy football que le meilleur gagne après bu jeexee jeex na ñun ñëpp ñoo far te nawetaan wax na ko sànq amul ku si jaarul quoi mm. waaw loolu daal laa amoon li di sant ñëpp di gërëm ñëpp mais avant nag bu ma demee ñibbi te sant sama jabar ji dina garaaw rek waaw di waaw di di di sant euh, sama soxna si nga xam ni maam Seynou Boy maa ngi koy nuyu nuyu spécial wax dëgg yàlla li may dang dang dang dang dang yëpp bu ma ñëwee du ma tal quoi waaw di sant ñëpp ñëpp ñëpp supporters yi gars ñu ngi sant ñëpp Bamba Tafa waaw suba la incha allah suba la ñuy fubal ak Jama Géejawaay dóor mu toog suñu huitième de finale yëmbal ñu ngi woo ñëpp nañ jugaat ñëw taxaw di woo ASC yëpp si ñaan si xaalis si mobilisation si lépp incha allah dina neex dina yëngu Aba ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla li nga bëgg yaa ko xam ñu ngi la koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal ci doolay nooree nii waaw Baye bi dundal jaajëf ayca Awa Gueye foog naa ni euh, ñu ngi ci seen i soxla ñoom ak li nga xam ne moo leen ñor waaye ñun tamit am nañ euh, programme am nañu programme boo xamante ni euh, ñun tamit def ñu ñor lool mooy Aba Show le tournoi du rire kon guys xam ngeen ne like ni ñu ko waxee am ñetti Fridays mooy ñetti vendredi yoo xamante dañ ko tegle euh, pour euh, indil leen euh, wàccee seen i stress at the same time boo fi ñëwee dinañ leen teral dinañ leen entertain dalal leen at the same time ñu teral leen jox leen teraanga bu baree bare ngeen dem ak moom euh, billet yi naka aba euh, li ci des bareetul bi sax jeex na bii jeex na mu ngi euh, noonu bii aussi bii aussi li ci des bariwul mi ngi nii guys am na billet VIP am na billet li nga xamante ni mooy 5000 francs te wax dëgg neex yàlla cherul nga fay mille francs nga ñëw ñu entertain la ñu faj la exactly wàññee sa stress ak everything nga dem Eh, nga fay di nga jënd billet 10 000 francs raada ñu faj la jox la nga lekk jox la nga naan eh, gunge la nga daal di ñibbi sa kër maanaam dañ lay joxaale teraanga nga yóbbuwaale ko eh, pour woote si numéro yi si. pour woote pour am si billet yi da ngay woote 77 648 19 86 wala 77 655 51 80 I'm gonna say it again 77 648 19 86 wala 77 655 61 51 80 80 guys euh, so mi ngi noonu euh, that's the info line lépp loo xamante da ngeen ko bëgg a laajte as information euh, mun ngeen a woote ba tey si numéro yii ni Abba dootul gan fii ni guys nee naa leen nee na après Abba am na yeneen show yuy ñëwaat yoo xamante ni ah man ñëwoon naa fi yi nañ ñu xaar ñoom ci région yi la ñuy jëm bu ñu paree parce que bu ñu paree ci Abba Euh, le tournoi du Rire dafay continuer parce que xam nga final bi euh, dañu ko poussaat euh, ba le 11 février yóbbu ko Grand Théâtre ci esplanade bi donc waa région yi dañuy def abat show mais autorité yi nekk ci biir région yi ak xale humouriste yi nekk ci biir région yi ne xanaa ñoom bokkuñu ci Sénégal mais nag dañuy génn dem fekk ji leen fi nga xam ni fa la ñu nekk kon sama sama show bu jeexee Abba Show day continuer euh, bu jeexee sama fun fii la ci wàllu place day jooy Abba tour day dem everywhere Abba Show tour day dem partout ci Sénégal donc wër euh, balaa ñu dem Grand Théâtre donc dañu ñëpp xaar te xam ni euh, dinañu ñëw fekk si leen fi nga xam ni foofu la ñu nekk mais dafa am benn single bu mësoon a ñëw ci réew mi avant ñuy dem univers bio. waaw balaa ñuy tëj ak suñu ay invité ñun sax ñu tëj. ndax léegi temps bi xam naa léegi mu jot. dafa am benn single bu ñëwoon. Mhm. ki way single bi ab Baye Fall la. mais dafa way single bu jàngale. Mhm. way single bu yeete. Mhm. way single bu ñëpp TikTok ñëpp estati ko. single boobu album la doon annoncé. album boobu mooy génn. le 2 septembre. le 2 bu silwise bi. Baye Fall bu mën a way bi. Baye Fall bi nga xam ni bu nee der. xool yëpp kontaan Baye Fall bi nga xam nijaayam moo moom fi ñu taxaw nii Youssouma jigéen dur la bokkal tarkalla njoogu afiya bu nee le 2 septembre day génn album xel yëpp war naa dal mhm. ñu seetaan bande annonce bi te ñëwaat léegi ci plateau bi yeggal mhm. ay ci ginnaaw bi mu woyee way wu rëy wi ku bëgg am am da ngay doylu nangoo liggéey ku bëgg dund dund bu feex Sénégal yéen ko doon xaar l'album de Ndiogo Afia maa la ko wax barki Cheikh Ibra album bi nu mu tudd Serigne Touba rek di jaamu yàlla ak a gëstu di rëy ci Cheikh Rafal mi rawi maasam ay bu Touba doonoon capital Serigne Touba rek Serigne Touba rek dong kese ah Afia di nga xam ni Mam Bamba ku ko kennal mu kennal la bég ñoo ko déggandoo album bu bees tàkk ak Ndiogo Afia l'innovateur l'incontournable talent bu yéeme ak Ndiogo Afia album bi dina disponible le 2 septembre Serigne Touba rek nouvel album de Ndiogo Afia Sénégal ku déglu dégg Afia ma Serigne Touba rek. du la yemaleeg dara dara dara Serigne Touba rek. ayca Ndiogo Afia from Medina bu subaa mooy nekk suñu invité indi moom itamit Baye Fall bu ko defee ñu ànd ak moom mais ànd ak moom ci wàcc album bi. gunge ko ci album bi mu ñëw présenté ñu album bi. bi war a génn la 2 waaye ànd ak moom ci màggal gi waaj màggal gi nga xam ne tarkal le 15 septembre. moom la àdduna yëpp di waajal fi ñu toll tembe tembe mais duma ma ci génn te duma jaale jaale. Mm, wu seet ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kër gi. ci suñu mbokk mi nga xam ni mu ngi liggéey ca Lobs. ñu daal di koy ñàkk muy benn boo xam ne dañu ko ñàkk mais acteurs culturels yi. ñi nga xam ne ñooy acteurs film yi. ñoom itamit danoo ñàkk seen doom ñàkk seen xarit. tey boo xoolee euh, sama doom ji lu ñëwul euh, mooy dafa am lu ko metti lool euh, moom. tos kii la doon àndal ñu bokk film vraiment xare yëpp mu laal leen mu laal xare yëpp touché leen donc vraiment ñu ngi ñaanal. Momo yal na yàlla yërëm ko euh, xaare ko àjjana sama doomu baay bi hmm, euh, li mu doon li muy def ci ndawam yal na réccu lépp euh, yeggale ndawam ci àjjana yi gën a kawe yàlla mën na ko yal na yàlla def di ko jaale ñëpp rek acteurs yi nga xam ne ñooy joué sa famille ah, ci label bi mu nekkoon mhm. ñëpp rek ñu ngi leen di seet di wax ni àdduna nag noonu la euh, lii ak àdduna ñoom ñoo ànd euh, donc ñu ngi koy seet di seet seen waa kër bu baax baax a baax a baax mhm. di ci jaale sama waa ji sama rakk ji mhm. euh, moom am na lu ko métti loolu tosh waaye lii ak àdduna ñoom ñoo ànd tey moo ko teree ñëw bi ma ko wooyee sax man xaw naa fàttali mais moo ma ko fàttali vraiment ñu continuer wax rek mu commencé jooy et yàlla na yàlla yërëm moomu bu baax a baax a baax a baax donc nañu dem ci bi yow xool li nga xam ni moom moo am waaw dañ koy eh, dem xooli Aba ndax ne nee naa la univers bio waa kër Nindi kër Galas eh, ñoom nag lépp luy baax ci suñu yaram rek eh, nee naa la ñoom ci la ñuy dox ndax gis nga gis naa bii nga xam ne moo di savon gowe mbërbëf xam nga gowe moom li mu mën ci jigéen dafa bari kon nag dañuy dem xooli waa univers bio daal ñëwaat ci plateau bi asalaamaaleykum ami téléspectateurs yi ñuy seetaan ñuy amaat mbégte ak contentement saa su nekk di jàkkaarloog yéen ci seen émission seetu bi waaye nag ku ne xam na ni uh, tey dañoo waaxu ndànk daal di dem ci fi nga xamante moom mooy univers bio ndindi kër gala sa nekk fii ci tey gàddaay bituk univers bio moom dafay dox ci lépp li nga xamante ni mooy li askan bi di jàmbat di mu nekk seen jafe-jafe te jamono ji ñu bëri xam dañuy faral di laaj jafe-jafe bi nga xamante ni mooy ay produits bio naturel 100 pour cent bio yoo xam te ne day faj mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa nekk li nga xam te ne dafa sonal nit ñu bëri dañu am xeetu gémmin te ñun dañ ci am ay traitement bio naturel amul toxique amul chimique naturellement luy faj mauvaise haleine bi mooy poudre bi lu ñuy broso la mu dindi sa xeetu gémmiñ am na ñi nga xamante seen bëñ dafa kadam dafa chocolat wala dafa nekk ay euh, bañu bañu bañu Kaolack ni ñu koy waxee wala bañu njaareem loolu itim produit bii moo koy faj mooy bu jaune bi mooy weexal bañ totalement mais en même temps gam bi dafa àndaale en même temps bain de mooy li nga xamante ni moom ngay broso sa gémmiñ rek ci kattanu yàlla ak baaxamu yëmandeem fu mauvaise haleine bi mën a jóge ci sa yaram rek dina ko mën a faj ñenn ñi dañu am odeur corporelle ñu ci des dañu am mauvaise haleine bi xamante ni fu nekk mën na ko jóge ci biir beeg ci put beeg ci ulcère rek ci estomac lépp rek garab yi gam bi da koy faj généralement incha allahu rabbi. sëñ Modou Lamine Bara Fall gaamu hémorroïde bi moom lan la. waaw soxna Ami Collé comme ni nga ko waxee léegi rek euh, gam pour wàllu hémorroïde muy traitement bio pour hémorroïde comme ñi ko soxla am na benn pomp spirit bi nga xamante ni da koy pomper sa ginnaaw fu hémorroïde bi di génn am na itam pommade bi nga xamante ni pommade bio la bi nga xamante ni macha allah rabbi day faj hémorroïde bi ci sa ginnaaw fu mu génn rek da koy dindi mais en même temps dafa am garab bio bi nga xamante ni itam dafa baax pour bépp nit bi nga xamante ni da am hémorroïde moom moo koy faj ci biir ak bu koy faj ci biti muy pomat spirit bi ak pommade bi ak huile bi ñoom ñaar moo koy faj ci ginnaaw muy gam bi nga xamante ni mooy faj euh, hémorroïde définitivement ba dootul ñëwaat. ñu daal di jublu ci li nga xamante ni moom moom it sonal na askan wi loolu muy ndoxum cité. waaw son Ami Collé comme ni ñu koy waxee rek univers bio moom dafay dox ci lépp li jëm ci wàllu bio ndax dañu am benn pomat comme ni nga ko gisee nii moom it la type bu macha allah liggéey bu rafet moo ci nekk bu esthétique sax macha allah garab yu baax moo ci nekk crème la fépp ndoxum cité mën a génn ci sa yaram ndax ndoxum cité day génn ci yaramu nit ñi. dafa yàq lu bari ci yaramu doomu aadama ñenn ñi seen wee ñenn ñi ci lu bari yàq na ko ci seen yaram. tube bii nag foo ko diw ci sa ndoxum siti incha allahu rabbi garanti da koy fermer ba mu dañ. ci kàttanu yàlla te dafa ànd ak garab bi nga xamante ni moom lañu naan amul góor amul jigéen unisex ñëpp a ko mën a jël. lii nag huile la bio naturel huile la bi shampoing la bi ci des crème la. ndax itim karaw pour nga bëgg mu ñëw il faut que nga am shampoing ndax nañu bàyyi saabu yi ñuy raxasee seen sikkim da koy damm shampoing bi moom ngay utiliser pour karaw bi mën a ñëw normal mooy raxas karaw bi huile bii lay àndal muy huile ba huile barbe bi bio naturel ak crème bii lay àndal muy crème itim bio naturel ñoom ñett lañuy ñuy composé mooy gamme bi xam te ni képp ku bëgg sa karaw ñëw moom moo koy faj incha allahu rabbi waaw produit anti vergeture bi moo nekk nii bi moom benn crème la macha allah comme ni koy gisee soxna si xet bu neex la am set na macha allah dafa dafa maase dafa dafa dafa dafa am forme bu baax macha allah day dindi lépp luy vergeture ci sa yaram moom it bio la. am na ci ay ay sirop yi nga xamante ni pour ballonnement la pour ulcère estomac yi pour xam te ne dañu am cholestérol am ay graisse. xam nga ñi nga xam te ne dañu bëgg dégraisser seen yaram fii li ñu fiy def bëri na soxna Ami Collé na temps bee ñu ko mayul mais amul lenn lu bëri bëri bëri dañ ko fi def 77 160 93 93 Nindi Kër gala Galas daw si leen gaaw seet si Mouhamadou Lamine Bara Fall looy tàggatoog askan wi lay seetaan waaw Serigne Mouhamed Lamine Bara Fall moom di dox ci bio ñëpp xamoon ma une géejawaay arrêt Dubales ba tey cabinet bi mi ngi foofu ndax foofu la ñu defee ay consultance képp ku fa ñëw rek incha allah daañu la dimbali géejawaay arrêt Dubales wala nga ñëw ndindi kër galas lu mu ci mënti doon daal man ak samay équipe daañu la taxawu jàppale la ba sa lépp baax incha allah. aji mu ngi noonu ñu ngi woon euh, univers bio Kër Galas. waaw moom euh, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall moom moo ñu ko indi loolu nga xam ne moo di ay produit yoo xam ne 100% bio la euh, nee naa la moom nag wax dëgg yàlla li muy faj bari na lool. ndax euh, am na ci yoo xam ne pour gémmiñ la awagay comme ni ma ko waxee woon sànq pour muy weexal say bëñ. wala muy euh, euh, dindi odeur yi nga xam ne mën na am sa gémmiñ yooyu yëpp daf koy def waaye itam indil nañu ay euh, savon wu gowe gowe nag moom ku xam-xam ne gowe dafa baax ci jigéen pour ma koy sangoo muy defa ci sa yaram ak yeneen ak yeneen yoo xam ne day maye ay karaw comme ni ma ko commencé woon sànq kon nag moom mën ngeen koo woo téléphone ci 77 160 93 93 wala 76 283 98 69 moom nag mi ngi foofu ci cité Gàddaay euh, en face loolu nga xam ne moo di Sénélec bi bu ngeen fa demee rek incha allah seen aajo dina faju macha allah ndax nag abaa gis nga ne teraanga yi mu ñu defar pour waa plateau seet bi yëpp la macha allah ku ci nekk nag boo ñëwee nga liir li nga war a liir euh, xam bi war a dem ci sa yaram nga daal di koy jël waaw. di maye karaw proposé naa sax mais nee nga yow. mais non dama seqal ak yow dama seqal ak yow loolu. yow bi nga xam ni moom nga moom danga koy jël nga téye ko. waaw <laughs> après ñun ñu teg après leneen fa des nga teg keneen ku ñëw liir li nga xam soxla nga ko nekk bi nga laa jël. mais yow bu karaw bi laa la yéene woon. yéene ko sa bopp. <laughs> ah yow ah, euh, maa gis kii di wax ngay def ay signes lan nga doon def nag di wax. monsieur le ministre Amadou Hott da ngaa leb monsieur le maire Bara Gaye monsieur Modou Mbène Diop responsable politique. 200000 xale déggoo yi li ma li ma leen jox. Mm. dama koo leb ay bor fekk na ma ci de. 200000 ay bor fekk na ma ci waaw. man li ma li ma doon wax mooy euh, savon gowe. Ah. waaw waaw savon gowe bi moom laa doon wax. parce que dafa wax ma ne waaw savon gowe war na neex. loolu laa doon kebetu noonu. waaw li nekkoon sama xel laa doon wax ci kaw. mu bi jot na fi ñu toll nii euh, président commission supporter euh, lan ngay wax sa lan mooy sa. mot de la paix. Ah, nee na ne déggoo. waaw ah, ñu dañoo déggoo. waaw heure bi jot na kon dañuy woowaat euh, liñ dëkkal rek. Euh, ku mel ni Matar Tour responsable APR. Mhm. papa Alaaji Diop. Euh, tante Khady ñu ngi lay woo. Pape Matar Lo président Xandaalu ñu ngi lay woo. di woowaat ñëpp ñu jàpp si ah di santaat ñëpp nag di santaat ñëpp dirigeant yi ñu ngi sant ñëpp joueurs yi ñu ngi leen di sant di ko jaarale ci Issa Ndoye ak Ndine Laye ah, sant nañ ñëpp oui. am na solo. Alma Alma ma jox ko président commission culturelle. moom itamit mu wax son mot la fin. waaw ñu ngi ñu ngi remercier Aba ñu ngi lay remercier si invitation bi donc di nuyu aussi suñu président commission sportive xam bu ñu amee ay joueurs yu baax yaakaar naa ci ay loxoom la jaar muy Mame Ndine. ñu ngi koy remercier bu baax di woo aussi comme ni mu ko waxee alaaj Diop mais daa am koo xam ne foog ñu taxaw ci moom muy Ami Diop. soxna Ami Diop mi nga xam ni mooy doomu Youssou Diop di sonn ci ASC bi surtout ci jigéen ASC bi day bàyyi itam ndax jigéen ASC bi ko muy responsable politique nekk PS yëmbal gépp ñu ngi lay sant ASC bi ñu lay sant sa taxawaay donc di waxaat rek supporters yi comme déggoo ni ñu ko xamee dem ci yar ak discipline la ñuy demee dem jëli liñ moom après ñibbi si waat bu ñëwee feetu maa lay wax lu garaaw gis nga ñun ak Farba bu ñu football final. ñu passé dañoo football ak ñoom ñu jël ñu jël coupe bi aba ñu jël coupe bi ci ëllëg sa ci guddi gi ñu dem seeti leen toog ak ñoom waxtaan ak macha allah macha allah donc ñun jëmmal fair play waxtaan. Mhm. ñun dañuy toog waxtaan suñu biir suñu paree ku nekk dem fi nga far. am na solo wala nga ñëw ñu ñëw ànd ñun donc ñu ngi woo ñëpp ñu jàpp ci waaye mbal na ñëpp génn

nangu li yàlla ku ma tàccu doo yore loxo ma ni ku ma tàccu doo yore loxo xolal li nga def nii Cuune mënu ko li nga def nii Cuune mënu ko aba ñan ñoo ko bëgg